waaw di nuyu internet Dakar Net yëpp di nuyu aussi tamit sénégalais ah di nuyu waa diaspora bi monde entier ah. di leen wax na leen ça va chauffer du yomb. waaw je pense que question boobu moom damay sawar pour tontu ko parce que avant tout passion la quoi xam nga nit ki moom dara boo ko bëggee rek. voilà ñu ma dugg ci depuis deux mille deux mille dix-sept ans. Mm-hmm. ak sama gars yi GoTV ñu yoroon suñu benn caméra di tourner ci ay moyens yu metti ah. Mm, benn caméra ngeen benn caméra benn Nikon. waaw sama sama benn frère ndeysaan kii la. Mm-hmm. te mu interprète ci rôle rôle Charles ci série bi. Mm-hmm. moom lañ moom la ko benn magam nee woon quoi. ñu nekk ci caméra boobu noon di ci tourner. Mm-hmm. mais période yooyu nag dama gënoon miser c'est-à-dire ci études yi parce que dama doon préparer dama doon préparer bac xam nga. maintenant du coup euh, pour ma ci daan nekk tout le temps dafa doon nekk problème quoi. waaw bon man moom élève laa boo xam ne man noonu laa mës a jàngee quoi man. Mhm. li may jàng ci biir classe bi koy jàngee. man su ma egsee teg naa sama sac quoi man moo tax fu ma mës a su ma dara mësaan rëcc ci classe. Mhm. dama naan voilà c'est mort que man fa laay concentré woo quoi. maintenant nag le peu temps bi ma doon resté après ma ne bon pourquoi pas li nga xamante ne loolu laa bëgg ma dem passé ko ci tout voilà. parce que xam nga aussi tamit nit ki mën nga bëgg dara xam nga nekk ci. te euh, voilà doo ci amagum objectif quoi xam nga. mais 2020 laa toog ma ne non man am na lu ne ci man loo xamante ne tey jii il ma wan ko Sénégalais yi quoi. Mhm. ah 2020 je peux dire voilà. ah waaw mais fii moom Sénégal la ah. mhm. te je peux dire que nii nga dara moom boo ko bëggee ay waxu ginnaaw wax fa dëgg yàlla bu dee yaa ngi koy bàyyi xel rek doo ci sori quoi. Mhm. waaw man nit laa boo xamante ni quand je vise quelque chose bu ma ko atteindre du ma du ma am jàmm quoi. waaw li nga xam te ni peut-être ay baatu ginnaaw la ci ginnaaw ça m'importe pas man li ma wal solo mooy samay waajur xam nga mhm. voilà ñoom wax yi ñu may wax man loolu laa mën a dégg xam nga ak ñi nga xam te ne leer na ma nit ñi kat bëgg nañ ma mais leneen li ci des moom wax fa dëgg yàlla baax ma waaw nag pour un début nag metti woon na quoi ah, début bi moom metti woon na trop xam nga parce que dañ naan yaa ngi nii bàyyi sa jàng nekk ci aar bi mais bon suñu borom su suturaal nañu ba daaw am nañ suñu licence mhm. voilà alhamdulilah ah, maa ngi ak licence maa ngi ak licence instant nii mm. banque finance assurance di waajal sama master aussi tamit mm. waa mais loolu moom sant yàlla la rek mm. Abdou loolu sant yàlla la loolu ay mbiru yàlla la waaw Serigne Mariama nag je peux dire ni xam nga waaw di nuyu waale sama gaaya ah, Mafia Go TV bi ñëpp mm-hmm. waaw parce que mën naa ne Serigne Mariama casting man laa ci duggee waaw casting laa ci duggee quoi parce que dama dem West Foire xam nga siège yu Dakar di profito ci occasion bi di nuyu waale waa Yes Dakar ñëpp ah. voilà foofu lañ demoon ñu def casting et après ñu soxla benn rôle boo seetloo premier épisode bi ñu soxla benn rôle boo xamante ne benn jaape rek la xam nga xawatee tabaan nii def affaire boy Pikine affaire boy Pikine xam nga <laughs> voilà quoi mais suñu borom moo dogal tey jii nii loolu jàll rek. sénégalais yi ñëpp bëgg ko ko mais loo xamante ni depuis 2017 yaa ngi ci tey ji tiit waratu la ci waaw mm-hmm. ah, man tiit moom waratu la ci man fu ma mënti dem ak ku mënti taxaw yaakaar naa track mm-hmm. moom ñëpp a koy am nag mais man yaakaar naa ko ni dépassé naa foofu parce que maa ngi ciy bëgg a yàgg aussi tamit quoi vraiment non loolu style la rek genre parce que yaakaar naa ne des fois tamit duuru xam nga def genre habillement boobu noonu génn parce que loolu xam nga ci suñu passé jamono yu mm-hmm. tim yooyu noonu noonu lañ doon gaameeg lépp xam nga waaw ah, mais mi ngi noonu daal. <laughs> mais succès la demee. non dégg xale jigéen yow mi lañ ko langal gaan <laughs> waa mais tey jii je peux dire que ne succès boo mënti am gis nañ ci Michael Jackson. Mhm. dafa daan génnee deux doigts waxuma la kanam deux doigts ay nit di xam. Mhm. kon tey jii yaakaar naa loolu boo ko gisee amaana yow benn duudu boo xamante ne te benn role bi nga fi incarné rek tey jii munoo jaay sénégalais lu leen saf am déet xam nga. Mhm. mais aussi tamit sant yàlla parce que avancement am na am na fu ñu jóge woon te am na fu ñu jëm te fi ñu bëgg a jëm sax du foofu exactement du fi ñu nekk nii nii nii. am na leneen loo xamante ne mi ngi suñ bopp te ñu ngi liggéey ci loolu chaque jour que jëfee xam nga. mais Abdou yow lii lan la. <laughs> da nga naan rumeur bi sa bopp. non na day sama sista la. sama sista bu baax la. <laughs> waaw mais dëgg la c'est très normal parce que xam nga ay nit tamit booy liggéey ak ñoom. Mm-hmm. yaakaar naa la moindre de choses mooy fluidité am ci seen diggante cest à xam nga ngeen sekk jàmm parce que day yombal liggéey mhm. mais na day sama sista bu baax la man ak moom sekkuñu dara xam nga ma koy nuyu de passage sama sista bu baax la quoi vraiment noonu laa mën a kii ah waa mais ñun lii lañ bëgg te lii lañuy def mhm. te mbir moom boo ci nekkee da nga war a polyvalent am de mhm. tey jii nii beneen rôle bu mu wuteeg bii buñ ñu ko waxoon tamit ñu def ko waaw ah, que ñi ngi liggéey loolu ñi ngi ci daal waaw ah, waaw proposition bu nekk moom da koy gis moom xam nga voilà mais gis nga àdduna boo ci nekkee nga am loo visé jarul nga yàqamti dara borom karaw gu ñuul ñàkkul dara am déet mm-hmm. on ne des jeunes et on vient de commencer on a encore rien foutu xam nga mm-hmm. donc dañuy door a door quoi defaguñ dara kon tey jii patience pour mën a egg fi ñu bëgg a jëm quoi mm-hmm. message waaw waaw je suis pas un porteur de voix mais sama sama opinion voilà dinaa ko dinaa ko dinaa ko joxe quoi xam nga comme boog man ni may dundee ci sama philosophie mhm. je pense que yi nga adduna mar naan ku mu taxa naan peut-être bu robinet ubbee da ngay rus quoi xam nga patience nañ teey mhm. xam nga nit ki boo doonee xam nga nit ku ñuul mhm. yor karaw gu ñuul ñàkkoo dara boo teeyee li ngay def nga teg ko ci yoon alaa kulli haal bis dina ñëw xam nga suñu borom dina la wuy quoi ah waaw mais message loolu li ma ciy wax du bëri xam nga mm-hmm. parce que aussi tamit gis nga àdduna genre dafa am lu ñu naan évolution mm-hmm. tey jii nii du ci théâtre kese mais tey jii nii ci loo mënta gis ci àdduna am na ay jamono fu par exemple tey télécentre gisatoo ko <laughs> da ngaa gisati télécentre <laughs> ñëpp ñu ngi ci seen téléphone mm-hmm. dans dix ans feeg ci kanam nan lay demee waat encore on sait pas donc ci loo mënta gis évolution am na ci mais na tegu ci yoon. <laughs> non kenn teg non non nag non yàlla xam na ne du préparation mais genre man li ne ci man laay wax. naturellement ça sort. Mhm. am déet non man maa ngi samay business comme li ma a doon wax maa ngi samay étude xam nga. Mhm. tantôt yaa ngi ci stage yi. Mhm. voilà parce que li milieu la boo xamante ne aussi tamit genre munoo euh, comment dirais-je munoo ko jël moom rek rek rek rek ne da nga ko opté comme boog man perso xaw ma keneen. mais parce que boo nekkul tey jii nii ci contrat. mooy loolu jeune nga war nga am xaalis am déet. ah voilà donc da ngay nekk ci say yeneen business ak lool rek du la yàqal dara. ah bon ñooy am na ci milieu bi. <laughs> ah. nga xamante ni ñoo koy gis. mooy amaana nit ñi nga xamante ni peut-être. mais des fois nga dem la. wallaahi du ma ci bàyyi xel. yow xam nga ma Abdou man bàyyi faal laa. man dunduma ay di xool ci daf may siis mhm. wala dara man je viens je fais ce que j'ai à faire je rentre chez moi mhm. amul leneen mais genre xool sax di ku xool mooy gis au fait mhm. ñëwal nga def li la fa andi ay fiiraange yooyu man de ñi ma nekkal wax fa dëgg yàlla gisuma ci ñoom loolu loolu laa mën a wax man xaw ma nag ci yeneen milieu yi quoi vraiment waa ah. waaw mais merci beaucoup Abdou di la wax ne la ça fut vraiment réel plaisir ah kontaan nañ bu baax a baax a baax parce que lii xam nga yombul depuis boobu ba léegi ñu ngi ko doon tëgg di ko tëggaat mais xam nga <laughs> mi ngi noonu xam nga voilà di kontaan ci sénégalais yi xam nga di kontaan ci diaspora bi di kontaan képp comme te yaa ngi bëgg a Doudou ah voilà Gambie diaspora bi xam nga bàyyuma kenn gars yi fu nekk lañ may message di moo te na defaluma leen dara xam nga waaw donc tey jii loolu nga delloo il nga leen koy delloo ñoom tamit ñu koy sentir xam nga boo ma fa jugee xam nga di nuyu waa kër gi sama maam Ngone Fall ñoom ray joojo sama yaay sama papa xam nga di bëggee tamit gars yi Pikine fii ma yeewoo koñ ji fii maa ngi bëggee ñëpp ah. di bëggee Baye Fall yi xam nga waaw bàyyi ma kenn daal Abdou mi ngi noonu.